اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني وكن أنا ضيقي أزين عاجلا بالبشي مع مرض حتى أكرم لدين الله أركانا يسيب دعائي توبا وحمني وقني أدورا وتجب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد منشك وأنا أجيب وسلم بسلم حسنا دي محمد asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ñooy topp alxadim yi ci bu jàmbare bi yàlla na sax sëñ Mbàkke Mbegere yàlla ñu yàlla boole dimbale xam naa di nuyoo bi nag ñu tey jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullah waraa yàlla na ko ko yàlla da sàmm ñu ànd ne fi ba ca kanam li kanam yàlla mën na ko barak Cheikh Xadim di siyaare turux yëpp ku la fa turux yëpp rek foofu kilifa nekk rek ñu ngi koy waaye xam naa anniversaire werd bi kon kon ñëw na juróomi mi mi mi fan ca kori wa ca gannaar ak sasin jë ak bëgg sasin jë waaw ak it jëm sasin mooy mooy wirdul xaatim bi muy lu am solo alxadim yéen ni mu koy defee at mu at mu at yi yëpp mi ngi koy def di ko euh, màggal ngir bëgg a may promotion euh, nit ñi ci ñu jël wérdu bi ren nag nag euh, suñ mbàkkee dane daa bëgg ñu waxtaane njëriñul wérdu bi njëriñul wérdu bi nag bari na lool waaye li ci gën a li li ci gën a not di gën cee foor ci man moy sëñ bi neena kat ataalluqu bi axsil wird sawa an al khidmata aw la musayba kep ku jël wird wi ci ko xamne ne am ndigalul jëfe gi ak joxe gi nga nga am ci ci nga nga jotté ko noonu sànq taalibe nga doo leen sax ma kon sart bu njëkk bi mooy ki la koy jox am ci ndigalul jëfe gi doyut mu am ci ndigalul joxe gi moo tax danaay wax ne képp ku la koy jox na nga na am fulla yi ne ko sëñ bi ku la ko jox léegi nag léegi nag nit laaj ma ne boo ne ko xaatim bi si sëñ ma ko jox mu ne ma koo ko jox ma ne ko wala yu ne bi ko monsieur xabir expert professeur du taxaw di di jàngale ñu naa ko prof bi foo ko jëlee kooku moom ab daytal la waaye nag ku ñooña mag ña buñ la ko waxee danga koo war a leeral sëñ Taala sama mag nee na bi bi ko si abi budi di jox maaxuus dane ko nii la ma ko Cheikh Moustapha joxe woon neen neen ko ku baax ki joxe woon kon si abi bi kon moom ma nga doon dox kon ca ca aada ja aaday suuf yank yi la wax nag wird mana mereka maanaam da kasih gis ku ya xasida lu bare wala muy wird la saar yu lu baree bare nangga mu junni ba noppi nag du makos maxus xasida yi si Sëriñ Tuubaa force nañu dañ ko war a jàng alxuraan ji sax du force ne dañ ko war a jàng kay bu dee nag maaxu sëñ bi daa wax ne man de yàlla moom ma ko jox jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu jëfandikoo ko digal ko aju man mu jëfandikoo ko góor ak jigéen fekk ñi ngi ci kaw suuf mu ne mu data mukk si ñoom góor ña waa mukk si him nag fi moom moom moom leer di ne képp ku koy jëfandikoo ak sart ya sart ya nag yomb na lool léeg-léeg seytaane na naan nit ñi sart yi dafa jafe di judde sart yi mooy sarti lislaam ci mukallaf la ma la tere ak la ma digal suñ bi deen soo ko dee jëfandikoo ànd ak sart yi yooyu da nga am liimaan lislaam lisaan liimaan mooy nga gëm yàlla soxol bi tawxiid képp na ca lislaam mooy nga nangoo jëfe ndigal ya lexsaan mooy loo def muy ngir jëm yàlla ja foofu nag am mbokkum Baay Faal mas na maa woo ne ma man de dama bëgg jël jël wérdu wi waaye man de eh, ndax ndax ku dul julli mën naa jël jël wérdu bi ne ko ah loolu wóoruma sëñ bi de nee na ne ku ku kii nag naa naa mu ne ah man kat mbokkum la coupé moo waat ko ne ko ah, man kat gisuma fenn foo xam ne werd dañ naan a Faal du ko jëfandikoo kon nag mën nga koo jël wax am solo la waaw man jox naa ko ay ay ay Baay waaw ndax ndax léegi wedd julli du ci sart sëñ bi bind ko koor du ci sart waaye nag ku koy def da war a julli war ci war a woor bokkut nag ku koy def kuru julli mënu ko def sew sew la de bo xamanteni ne na leral sëñ sëñ bi de ko ko jëfandikoo nonu da nga am saadu day ni saadu day ni sa xel dal ci yalla misal kat so ko jëfandikoo bo démé ba jëm sax sa xel dal amadou Diop day wax naan man day yor ma ko jëm bakka moma gëna doy wax wax na dëgg de nga xam ne kat yow sa xel dana dal si ma leen jóob mu tëdd ma la ma waxoon ci mujj ga daal ne leer na ma suma roo gi ko sama càpp yaram bi mën nu sama sang ba kooku am na yëqin ah kay ah kay sun mag ñu sun mag ñu baax ña buñ masaa màggat dañuy bég waaw ah, xam ndax ah ña nga woon ca tool ba di te wàcc na kon sanaadu du dari du du du firi ab khalis waye moy sakal dal ci yalla ala bi sikki lay tatma'innu kon mom lolou do mo na mana mana kep ku kuy jëfandikoo maaxuus bi ñun fukki fan kep ci nona da nga am lo xam ci sa bop amna ay gone yo xamne joxna len ko ñu ñu wax ci ay kawtéef man maa ko defoon wax leen ko saam jaxate am ku ma woone ma kat daa am jigéen ju am doom ba noppi te doom jël nangu dana ma ne ko ma ne mbaa di jël kaas bi bidil bi daal di widd ma xus ëppoo ji ne ko soo demee na na ci kii wala kii ci ci gam ne ko mu woo ne ma ma nàmp benn waaye ma jox ko ko nee na mu dem Fuuta la xaw ma Jolof nee na ba accès daa fekk maamam tiim ak soxna euh, magam ñu tiim ab xale daal jooy yaakaar ne daal xanaa daal déggu naa ci ci yow loola ma daal di dem jàpp man daal di wéddi wéddi xale bi ne xam nag nelaw ba mel ne dara dër ko benn benn mbàkk mbàkk ba ma ko joxoon moom it mu ne ma daa jóge ci daara ja dikk. ñu ne ko soxna si de dafa wéradi mi ngi tëdd nee na ma daal di wedd wedd bi ëf ko ko mu ne ñokkat yooyu mu leer la am na benn xale fan yi boo xam ne nee na xaw ma mbokkam daa wéradi ba docteur yi ne dañ koy opéré bu mu war koy jàngal wedd bi ëf ko ko yéene ko ko nee na mu dem hôpital ñu ne ko gisuñu dara <laughs> médecin yi dañ ko woon dañ lay opéré ne ko gisuñu dara xam nga sëñ bi eh, wérdu maaxuus yàlla ci boppam moo tànn ci ay mangasinam ab secret bu mu fonk lay waral fonk gi mooy ki mu koy jox salaay salaam salaay salaam sang sang sangu bindeef yi la koy jox yàlla jox ko jëwriñam joojoo ne ko joxal ma ko sa jëwriñ ja déet loolu sëñ bi loolu loolu leer na loolu moom dafa leer nañu moom léegi nag yitte ji ji mooy dëgg dëgg man li maaxus bi li ma ciite woo mooy luy comprimé ne am murid la confirmation am na ñu naan nag kooku yorut ku mel ne ñoom Issa Guèye daal daal yàlla da ko bëgg man nag du ma obligation la waaye nag confirmation la daal ku ko man na nga jël ndax sax murid ñu confirmer ko ndax nag at yëf yi wóorut wóorut de sab sëriñ mën naa nekk am góor a njaay ah <laughs> wóorut de yow fexeel yow ba ki lay jox wedd bi daal na ci am ndigalul jëfe gi ak joxe gi silsila mu tasi la ba ba jaxeñ tubaa càllale gi bu daggee courant bi du dog si kooku kooku moom kon moom njëriñ li kon moom leer na nañ ñi moom ci baatin bi ak saahir si tey kat Mouhamed Diakhaté mii na jël maaxus rek yam ca ab maanaam naa léegi ay yitteem gone yàlla yitte yi may ko ko mu mu mu mën a toog na jël maaxus képp saa su amee soxla ñaan nañ ko ca tur tur yàlla dëgg dëgg la tur yàlla boo xam ne borom bi ci moom borom borom bi xam moom moo xam ne bii gën mu ne ki ki ko gënal am kooku ne ki mu gënal am astaj bi kon maxus kon maxus yaakaar naa tedd na tedd na de te te te léegi maxus silsila bi gàtt lool ci noonu ndax tijaan yi ñi ñi ngi wedd wedd tijaan waaye ñoom si selu duy gudd si sëñ Tuubaa gànnaar naar yi da daal di ñëw fi moom naa ko naa ko joxaat ñu yi ak tijaan yi ndax mu gën gën gàtt man bu dee si si selu ma jox maxus Moussa Diop dara wax xel koom léegi yéen de seen seen silsila na man sëñ bi <laughs> gàtt na kon léegi sëñ Saliou jox na ko sëñ bi man ma jox ko kenn ak ay gàttuwaay ah <laughs> ah loolu si gàtt na ko de te te te li tax gàtt gi ñu ñu di ko ci sakku dañuy bañ su guddee mu am fu mu dog te ko. waaw ah, loola sëñ Tuubaa bi muy yees lu xaadiriya bàyyam moo joxoon bàyyam waaye gisutu ci dara muy wër nag daal fu mu fu mu ndax daal wër euh, wi dëgg la waaye xanaa kon daa am fa doog xanaa lu am solo la lu am solo la nga xam ne nga xam ne kon moom léegi fexe ba silsila bi wér loolu ñu tuddee taqiqu silsila ci tasawuf da ngay fexe ba ba mu wér li cëng ne silsila bi wér na nga dox ca kon jigéen nag sama gone yii ñi nga xam ne ma am naa ci ñoom kilifti dama leen ko jox dongo yi fi nekk xale yu ndaw yi dama ne képp koo xam ne àgg nga ci war a julli da nga ko war a def am na xam ne ah, ndax ndax moom diisut diisut kay diisut amul lenn lu ci diis kon daal kon moom gone gu mu kàllaf mu tàmbali julli daa war di wet góor la jigéen la bu dee bu dee am maam nag moo xamante ne man naam yaa joxe am nangam fukki fukki lexlaas yeeg ñaar waaye man nag amaguma ci silsila sëñ Bachir keroog mi nga laaj mu ne ko man daal téeméeri lixlaas laa amoon silsila ci sëñ Saliou booba maa ngi ma maa ngi ci daraja fanweer ak ñaar juróom ak fukk ak fukk moom ëmb ci silsila waaw xam naa ne sëñ bi ko waxoon léegi wax waaye nag loolu xam naa kon kon moom ci tënk kon kon xam naa kon laaj yi xanaa kon waaw hmm. laaj bu njëkk bi. laaj bu hmm. am na xale bu bu ma woo ci yor-yor di wax ne. am rakkam joo xam ne doon jëfandikoo awraat yëpp mu tamaatan ba mu andi ko tàngoor am na kilifa goo xam ne wax na ne daana ko def ba mu andi ko tàngoor ba ñu bugg ci kilifa sàngam waaw léegi eh, xafiif ak mm, ay yooyu ñu wax noonu léegi yow warshak ak xaalun bi xanaa du alxuraan lépp benn la jëlal jëlal benn bi xam nga nit ñi la saar bee tax ñu ñu ñu jàpp ne fekk guddut fekk bëriwut amu ñu ñetti yëpp xanaa ndax mu bare su baree ñetti lixlaas moo gën a foor baqara ah sëñ bi ñetti lixlaas su boo ko jàngee yow ngay tari baqara man noppi naa bu yàgg amu kaamil te amu te bu jeexee doom kaamil yow kon leer na kon bu ci topp. li ma waxoon léegi ca ca naari gànnaar ya tey ma ngay jël wér de ba noppi nag dégg ñu ne kat am na ku ku gën a gàttale silsila nga dem yes ko foofa barkeeloo ko sëñ Tuubaa ñoom ko doon jox gànnaar tiyaan yi ñoom ay tiyaan lañ de ñoom dañ koy barkeeloo Wajum sin sir sir sin lañ yor ba noppi nag di bakelo sëriñ Tuubaa lu am solo la ap ci sew de bu ci topp hmm. waaw kay waaw eh, mana murid gi lian naan ruuxul muridiyya la mom, téwut moom fi mu toll nii dëgg yàlla tey Cheikh laa yomb na ko lool mu woote woon rakkam yi doomam yi ku ci yor mbindum sëñ tubaa ci maaxuus bi andil ma ko te ma ko scanner ñu scanner ko mbind ma kenn du laal ñu jël ko dal koy exposé ca ca euh, daari kaamil ja ku dikk gëstukat xam ne bii di moom ñu ànd ak tampom tampom ne la source bi ma nga barab sangam ngir boko beugé wourlu xare ma ma nga fa ñu ne li kat moy mission bi misaal tey li li eh, yu ndaw yi xana ne ñom lepp lu niroog sëñ bi mbinde ñu ne mom déedéet arsalahu haqq ja arsalahu haqq secret boobu jalaal eh, sëñ Murtala sëñ Murtala Fall sëñ Murtala fal dañu dajé di dem di dem Mauritanie bobu man mom la wërta

kaamil bi li ñu tuddi kaamil ak li ñu tuddi xafi mu lañ xam ak xaatim bi am na nag yeneen yoo am yooyu mën nun xamu na ko waaw waaye dañ koo saytuwut waaw foofu foofu du neex a waxtaanee dëgg-dëgg ndax waaw waaw baax na baax na foofu de waaw waaw wér yëpp kay teggin yi kay moom benn la waaw waaw waaye nag xam nga noonu nun xamuñu bay xam sunu murid gii ci tasawuf ufa la ne te nun xamuñu tasawuf te noonu jàngaluñ ko di xam nga tey maanaam euh, Cheikh Moustapha mu tedd ma daa yónnee ci sama bàyyi neen dafa dafa yónnee ci sëñ bi ne ko damaa bëgg a tukki ci kër gi sama bàyyi ne xalwa sëñ bi ne ko ma laaj koo borom dugg génn ne ko ne ko sa borom ne defal na leen ko ci ngeen bàddali mbooloo mi ne ko billi leen xar kanam ya lay tee ñu yoqi maa koy def ci xol ya kon dégg nga de Cheikh Moustapha sëñ bi dana ko yow sa xalwa mooy na ci liggéenti mbooloo bi jeex na jeex na la la loolu ci xalaw ba ma ma ma nga foofu waaye nag ba leen xar kanam yi ba ñeme leen ma mañ leen a di di soxla xanaa jeex na. <laughs> mooy njëriñu xalwa xalwa moom di jëriñu lu may rek wii de sa xel mi ci àdduna ba mu set wecc ci nga mateeru kese loolu du nga de leer na xam ne kon xam nga njëriñ li xam nga jeex hmm. hmm, hmm, sew sew la de ndax ak sëñ wala. ah si si wala de xam nga léegi sëñ bi moom bi moom da lay digal booy def yaa nga ca yaa nga ca sëñ ba soo bàyyee ni ko kese de xam nga loolu tasawuf ji bu bu ñu ko jàngaloon loolu lépp dañ ko ci indi waaw ma fiqu tariqa noonu amuñu ko di gét maanaam noonu murid gi noonu lépp luy sëñ Tuubaa amuñu ko ñu ci tabax kay tabax ja oto ya waaw compte bancaire luñ sëñ bi de noonu yàlla tere yàlla tere léegi nag bu bu bu ñu doxee ab diir tabax ya day màbb oto ya màbb lépp yàqu dootuñu mën a am am tabax dootuñu mën a am gi jëmmu uh, mbër mu mbër mi ëpp doole ci nangam ci lang ga maanaam maanaam léegi la ko tax am doole xam nga doona ah, ruuga bu ruuga rocc ko lépp yàqu hmm? ñetti fan ñeent rek day mari day tari kon roo gi moo fi indi xéwal gi waaye ci waaye nañ fàttali ko ak lan. ay bi sa yom sama jamono di ñuy wax xam nga dañ koy baamu ñetti yoon. waaw ndax ñetti yoon bu ci ne day ànd ak aw. sikkuut sëñ Tuubaa lañ nañ ko ci ca moñ moom bu mag ba mu ne comment su su suturé la koom jàngal leen ko ni ñu ko bindee. bi ci topp moom daanaka ndax basmala ji ñuy baamu yooyu loolu la ko yóbbaale. lépp kay lépp rek la waaw. de de am na laaj bu am solo bu dee ca xaatim ba min huja ba ba ci amin yàlla ba xam ne loola dafa am ñoo xam ne jànkat yoo xam ne dañ ne li si asaba sala wa sala na ja xanaa xanaa xanaa station wax wax ko sëñ bi xam nga loolu loolu mbirum sëñ bi la man may leen sëñ bi bu ne woon Gora Ndiaye Moustapha Diop Gora Ndiaye mooy mooy maxus fukk juróom ma ne ko wér ci man jeex man xaw ma man sama nekku ci man sama yoon nekku ci man suñu tubaab li ma jox laay laay def man yëpp man suñu tubaab wóolu naa ko de xanaa wala jaaxal tàkk de. lépp am benn yahudi yi waaye amul bi di dikkaat ne man kat fayoo ma benn saxaabi fekk ko fa. saa si ne ko fay na la mu ne ne ko fa yow ma kay fa yow ko fay na la yow di dem waaye saa si ne ne ko yow loolu yow noonu commencé rek yow fii kaw ko de mu ne ko naka laa lay nangul la ci axabaari asamaaw ba noppi di la bañal lii mu te nekk di te nekk di sëñ Tuubaa mi nga xam ne ginnaaw bakkan moom lañ fa yaakaar bu dee ma góor njaay mu ne ko est-ce que góor njaay dong la ah góor jaay dégg la waaw. ndax nit mën euh, ci moom. Euh. waaw foofu la yem maanaam dig digal bi. Ah, ah, loolu la tuddee xaatul istilaam ci suuf istilaam kooku kawe na kawe na de kawe na de daa def indication bu am solo lu ci am njëriñ rek damay jullit timis ca eh, timis ca eh, sam jaxate sen sama bay mu ne barsaq bo ma xoolee suuf si sen sen ëtt bi te te day sen barsaq sen ëtt bi ma ma jaaxle ma ma ngi ma ngi tuli ma ngi julli bu defee di sen barsaq di ëtt bi xol fi fi fi bobu boobu mo mo moo for li nga wax islam moy da ngay absenté wu totalement dem fenen fi da ngay bolé ñaari ha <laughs> ko maa ni kon ndax man Ngoné Ndiaye ma ma ma ko wax <laughs> Amadou waaye <laughs> si la ko si la. ndax mënees naa mënees na man man da ngay newul ci da ngay yu kuy julli wala fenenklaayu. fenkalaayu nag naa mën naa mag mag mag bu fenkalaayu ndax ndax jekk ko bu dee oto nag moom jublu penku bu dee da ngaa na ci daaba juy daw fu daaba ji jëm foofay sa penku mo mo bi sattuñu ci toog ku julli wala fenkalaayu xam nga nag dafa am teggin abaar ah, bi teggin yi ma ma maxus bi mooy dëgg-dëgg laazim bi ginnaaw maaxuus nag mën ngay dox di wedd leneen ndax ndax nag du lazim fii lazim la fii obligation la en tant que murit nga obligation la ci yow nga wedd maaxuus kooku yow da war a toog nag concentré wu ne nekka di sëñ Bamba kat li ma li nga xam ne moo ñu lënkale lënkale ñu ak yonent bi ak ak ak ak yàlla mooy maaxuus bii. misaal man wedd ci ci danaa wedd nii di di wéy wedd bi ma sëñ laa jox ginnaaw gee laa ko fixé julli gee ba noppi sësale ko ca rabbi bi bi may sax bi ma sëñ Saliou jox moom laa koy ubbee lépp dama ko fixé ndax sëñ Tuubaa dana ci ci ca kii masaalik wedd mooy da nga koy wutal jagleel ko dara waxtu man dama ko jagleel waxtu fonk ko fi nii gee danaa koy yeex a julli rek. bude man kep la damay bëgg gee ma xëpp ndox ba sawar soog a julli waaw nga boobu boo ci mbolo yi da ngay julli gee rek dem da bëgg nak man nak tal ko nak lool lepp ci teggin yi la waaw. loolu xana xana xana kon leer na ko day day mu toxtolo julli wala mënees na ko def julli go wala. xam nga xus mom bu bu dee ñaar yi nga xam suba la suba gi ba yor yor bu tàng bi fajar gi ba yor bu tàng bi muxtar ma yor yor bi ba takkusaan koku kooku kooku mooy daruri bi bu agsi ci takusan ji léegi da ngay fay bi nga defutoon johe doo ko joxe takusan bi da nga joxe bi takusan ji ba timis muxtaar timis ba fajar ja daruri bu nak nag xaatim bi la tusubaar ba takusan muhtar takusan ba timis daruri timis ba ge ba tay muhtar ci ñaareel bi ge ba fajar daruri léegi nag soy wer dekk do wax do wax sun bakat ya ngi gis am solo bu ndey wer de ko nuyo ñu waaw kurus waaw am ko wax sa nan ki ne baayam da day génne ci jàkkay njaareem ji nuyu kenn ci mag ñi asalaamaaleykum kooku ne ko wala jikku lay akbar da daal di yàlla moo wax ne bu ñu leen nuyoo na ngeen fay mu ne ko waaye nag sikkur lay gën a for loolu bari wi moom lu am solo xam naa ne sax sëñ ba maanaam dañuy jàngal wala xamutoon ne sëñ baa ngi ci kursam kon kon daal la am ne kon maa xusa nga na ko ñëpp jël jigéen ñi ci lañ bokk. li ma mu a xam-xam nga xam nga bi ma indee muxtaar ma déroulé bi waxtu wi moom jot na. waxtu maaxuus daal lënkalu julli gi waaye bokkuñu dugg nga oto kat sa sëñ Bakke mii dugg oto jëm Ndakaaru timis jot oto bi taxawut sëñ Mbàkke léegi nag mën naa wér di maaxuus moom ginnaaw mi ngi am njàpp wér di maaxuus bi bu bu demee Ndakaaru julli waxtu yi dañoo duggante waaye bokkuñu waaw kooku kon de kon kon kon rek di di di ñaan Cheikh Amadou Muntaxa yàlla may ko wér kattan te te nag dimbali ñu ci ji dajale jéem a dajale nu sax yi wedd wi mbind loxoy Sëñ Tuubaa yi yaakaar naa daal su su ko ñaanoon rakkam yi doom yi danañ ko ko ko may bañ am ci lu wóor ndax kat wóoru de wóoru de wóoru de te seytaane mën na mën na nañoo dox ba ci kanam for bu bu bu wér ba gaa yi wirut for jël ba wirut for ah, sikkut ndax man am na na ñuy indi ci man am na am na ñuy am man man ko ko ko ko gàkk ci sëñ bi da ma ca yaakaar ma yaakaar ko def dañu ma ci indil ko wax ndax kon mi gone da ko اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم